ziar nañu leen internet yuy bàyyi xel seen site bi di siwal point net ñu dikk ak yéen ci xibaaru bés bi bokk na ci li ci gën fës ki fi nekkoon président bu Tchad Hissène Habré faatu na tey jàngoroy coronavirus moo ko yóbbu woykat bi di Souleymane Ndiaye te ñu gën ko xam ci Julio Lapsoli te ñu gën ko xam ci Julio Lapsoli retour de parquet la mujjee am ginnaaw ba mu waroon a jàkkaarloo ak procureur tey jii ci Touba nag benn borom kër moo ñàkk bakkanam ginnaaw ba mu ci troisième étage daanu ci M moom nag mi ngi ci loxoy yoon ginnaaw ba mu dóoree yaayam euh, taatu fital ginnaaw bi camion malien bi reyee ñeenti nit ca Kaolack ministre malien bi yor wàllum transport euh, demoon seeti njabootu ku ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ñu wax ci élection locale yi ñu jëm moom nag caution bi mujjee nañ ko xam euh, mi ngi toll ci fukki million ak juróom inondation ci dëkk bu sell bi di Touba askan wa dëkkee ca Kër Ñang mere nañu loolu état Sénégal ak mairie tey jii la ñuy door trentième édition bi fele ci Rwanda li moy li ci gëna a mbokk yi nestu tu ñu dik ci yaatal yi comme niñ leen ko junjee woon ci ndoxteel xibaar yi Hissène Habré ñàkk na bakkanam moom mi fi nekkoon président Tchad faatu na tey ci talaata ji moom nag jàngoroy coronavirus moo ko yóbbu ay waxtu nag laata muy ñàkk bakkanam soxnaam di Fatim Raymond Habré mi ngi doon dëggal ni Hissène Habré dafa amee jàngoroy Covid 19 ci ab communiqué nag muy xamle ne médecin yi ñu ngi ko doon taxawu ci benn hôpital bu nekkee ci Ndakaaru fàttali nag Hissène Habré dañ ko tëjoon ngir dundam ci Ndakaaru daan extraordinaire kenn ñoo ko ko tegoon ginnaaw bi nit ñu bari ñàkkee seen bakkan ca réewum càdd jamono ji nga xam ne moo nekkoon njiitum moom la réew moom mi nag di Hissène Habré jotoon na am ab bàyyib néggandiku jamono ji nga xam ne jamono bi nga xamee ne ñoo ngi woon ci première vague bu coronavirus ginnaaw ñaari weer yoo xam ne nag def na ko fa ci la delluwaat ci kaso bi bu fekkee ni sax ay mbokkam ñoo ngi doon sàkku ngir mu am beneen bàyyib néggandiku ci jamono ñaareelu vague bu coronavirus ñi yor wàllum yoon mujjewuñu nangu sàkku seen càkkuteef googule mbirum waykat bi di Souleymane Ndiaye ñu gën ko xam ci turu Julio Lapsoli moom nag ginnaaw ab son bu mu génnee woon eh, te tuddee ko tarixa loolu nag juraloon ko ñi nga xam ne ñoo di waa dikk woolu woon ko ba jotoon ko def garde à moom nag tey jii ca la waroon jàkkaarloo ak procureur waaye lu ni mel eh, sottiwul ndax dafa mujjee am retour de parquet eh, ci fàttali nag moom mi la di Souleymane Ndiaye te di wuyoo ci turu Julio Lapsoli li tax ñu wóolu woon ko mooy kàddu yoo xam ne mën naa jur ay jafe-jafe ci diggante tarixa yi nekk ci réew mi quartier ndaamaatu nekkee ci Touba yeewoo ak tis démb ci altine ji ginnaaw bi nga xamee ne borom kër bii di M Cissé moo jugee ci troisième étage tëpp daanu ci suuf daal di ñàkk bakkanam Seneweb mi fësal xibaar bi di ñu xamal ni M Cissé mi ngi amoon lu toll ci juróom benn fukk ñett ci ay at luye woon ci benn kër foofee ca Ndamaatu ñoo ngi ñuy xamal itam ne góor gi di M Cissé àndul woon ak xelam ndax jéem yoon sottiwul lu manti am nag commissariat bu ndaamaatu ubbi na ab l'enquête ngir leeral mbir mu ni mel mbirum M Lam nag di ab xale bu góor uh, bi nga xam ne uh, jamono ji mi ngi ci loxoy yoon uh, ginnaaw bi nga xamee ne dafa doon fitnaal yaayam ji di FN Diallo moom mi leen nag fanweeri fan ci weeru utu lañu ko war a àtte bu ñu delsiwaatee ci mbir yi nag ki nga xam ne moo di yaayam di ñu xamal ne ay coow yu ndaw ci lañu ñu jotee ndax moom mi lekkat di yaayam moo ko wax ne yu baax di M Lam jël taatu fital dóor ko ki nga xam ne mooy yaayam yaayam jooju nga xam ne nag ab tukkikat la ci réewum États-Unis jàpp ne doomam ji di M Lam am na ay jafe-jafe ci wàllu xel ci kanamu laajkat yi nag M Lam weddiwul benn yoon ne moo gaañ yaayam waaye itam di xamle ne rek mu ngi koy jéggalu ginnaaw accident bi amoon ca Kaolack te ñeenti nit ñàkkoon ci seen bakkan ministre malien bi yor wàllum transport demoon seeti njabooti ñi ci ñàkkoon seen bakkan ci fàttali nag mbokk yi benn camion malien moo tase woon ak benn taxi loolu nag juróon ay manifestation ci ñaari réew yi di Sénégal ak Mali kilifa yu yor wàllum transport ci ñaari réew yi nag jotoon a génn ba yëkkati ci ay kàddu ministre malien bi nga xam ne mooy madame Dembélé Madina Sissoko mi ngi woon ci Ndakaaru ngir tase ak ki nga xam ne mooy ministre Sénégal bi yor wàllum transport daje bu ni mel nag ci la rek daal di profito dem jàll Kaolack ci njabootu ñu ñàkkoon seen bakkan ci boobu accident wàllum politique 2022 yooyu les élections nag ku ci bëgg bokk faaw nga joxe copar yu tollu ci 15 millions manam fukki millions ak juróom ministère de l'intérieur moko ko xamle démb ci ab communiqué boobule caution nak itel élection départementale ak municipale parti politique ak coalition bu ci bëgg bokk faaw rek nga joxe lim bu ci 15 millions tollu ci fukki millions ak juróom copar yu ni mel nak dinañu ko yobbu ci caisse de dépôt et consignation ginnaaw taw yu metti yi amoon ci dëkk bu sel bi di Touba waa askan wa nekkee ca ndaamaatu di wéy di dund ci ndox mi ba léegi woowule askan nag mere loolu nguurug Sénégal jàpp ne jafe yi ñuy dund ñoo leen ko teg ndax nag li nga xam ne mooy bassin de rétention bañ fa taxawal tey jii moo jur boroom kër yu bari yoo xam ne amatuñ fu ñu dëkk jamono jii seen mer moomu nag yemale ko rek ci nguurug Sénégal ndax nag jàpp nañ ni ñi nga xam ne ñooy waa mairie bu Touba dañu leen a seetaan ñuy wax ne nag ay at ñoo ngi dund ay jafe-jafe ci wàllum inondation musuñu jot ndimbal lu jugee ci maire bu Touba jëm si ci ñoom waaye naka ñuy xamle ne ñu ngi sàkk bu baax a baax ndimbal ci xalif général bu murit ndaxte jàpp nañ ne moom rek moo leen mën a jëlee ci jafe-jafe yu ni mel wàllum tàggat yaram mbokk yi 30e ba bu basket ci góor ñi nag tey jii la door ca Kigali ca réewum Rwanda fukki équipe ak juróom benn ñu xaajale leen ci ñeenti groupe ñoo bokk ci jongante bi Tunisie mi jëloon raaya bi ci jongante yee ñu génn moo doon amal match bu njëkk bi tey jii diggam ak Guinée Tunisie moo mujjee gagné 82 suñu gaynde yi nak wara amal seen jongante bu ñëk ëlëk bu 16h jotee diggam ak Uganda li lañu leen indi leen mbokk yi ci ay xibaar ñu joxante dig dajé ba ëllëg inshallah fo foo mënti nekk ci aduna wërngël këpp tamul siiwal point yemb na ci application bi di Google Play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 waaye nag mbokk mi ñëwal xool sunu menu boo fi duggee dafa complet àndalit mbooleem réglage cay siiwal point net ci xarala waaye tamit ci information bu gaaw nga koy am à la minute wóor loolu boole ko tegu si maanute lii daal bu leen ko kenn nettali point net yemb na da ngeen koy télécharger waaye tamit yemb na Twitter si Facebook mais également si YouTube siiwal point net sa télé si poche moo taxit ko